asalaamaaleykum mbokk yi ñu sant yàlla moom mi am yitte si ñun ba binduñu moom borom asamaan suuf sant ko dolli si li ko doon sant si mbooleem xéwal yi ñu defal yépp xéwal yoo xam ne tey bu ñu ko doon lim duñ leen mën a daj moom subhaanahu si mbaaxam si lañu ñu mayee ñu am jotaay bi yitte ak njariñ yitte ak njariñ ngir lépp loo xam ne ñun suñu ay mbébét la suñu ay yitte la ñu teg ko fii waxtaane ko waxtaanee loo xamit sunu njariñ la ndax doomu aadama ñaar yooyu dañ koo tënk doomu aadama dafa am yu muy mbëbët doomu aadama dafa am lu mu bëgg doomu aadama dafa am lu muy yootu doomu aadama dafa am lu muy lijjanti yooyu yëpp ay yitteem la doomu aadama da siy xëy di si gont di si yéeg di si wàcc te doomu aadama xëy gont yéeg wàcc yooyu yëpp njariñ dong la si fàggu kon nag yitte ak njariñ ngir dalal fi ñoo xam ni ñoom seeni li ñuy dox am nañ si xam-xam Euh, li yitteel askan wi mën nañ si yee yàbbi su ko defee ñu am si njariñ tey ñu ngi ànd ak Assane Mbow Assane Mbow moom moo jiite commission art bu Konamas Konamas kuréel la goo xam ni dafa ŋànk ñiy euh, yëngu si wàllum aar ak yooyu euh, ànd si tamit moom Assane Mbow ba léegi moom mooy président collectif bi nga xam ni ñoom ñooy ay cordonnier lañ ak ay maroquinier ay wuude lañ ak di yëngu si wàllum defar ay saag ak ay. ay dàll euh, ak ay ceinture ak yooyu. en samit ak euh, Cheikh Saliou Dieye Cheikh Saliou Dieye moom euh, pharmacien la Cheikh Saliou di la nuyu di la dalal la ziar. waaw ah, merci beaucoup professeur tamit maa ngi lay nuyu di nuyu sama nataangoo bi di nuyu tamit téléspectateurs yëpp di nuyu ñëpp ñu may seetaan. macha allah moom euh, kenn la sama étudiant yi nga xam ni dëgg-dëgg dañu àndoon di di liggéey. Euh, ba tey suñu borom may na ko mu génn nekk pharmacien loolu ñu koy sante yàlla Assane Mbow di la nuyu di la daal la ziar. waaw Tounkara maa ngi lay nuyu di am mbégte ci invité bi invitation bi ñu defal di nuyu sëñ Saliou ma jàkkaarloo di nuyu téléspectateurs yi ñuy xool yëpp rawatina suñu président muy Omar Seck di président wu Konamas di wax ne comme ni nga ko waxee ñoo ngi sant yàlla ci kattanam ci mbaaxam. ci màggaayam may bi ñu may ba ñu ñëw toog fii di mën a participer ci émission bi. aywa sunu euh, ñawkat moom mooy euh, Pape jàlloo Diallo di euh, njiit création fii ci HLM Nimzat moom tamit di ko ziar Cheikh Saliou Dieye. Mhm. yow pharmacien nga. Mhm. pharmacien mooy ki nga xam ne moom ay garab. si lay si lay yëngu. Mhm. dina du jaay garab rek nag mooy liggéeyu pharmacien pharmacien sax day defar garab. sa njalbeen sax pharmacien loolu la doon loolu la doon gën a yëngu. waaye ñun Sénégal mbir mee dox ñu xaw a dellu ginnaaw nag ba tax léegi pharmacien jaay garab lañ ko gën a xamee defar garab loolu am naa am amul. Euh, merci beaucoup ton professeur bon pharmacien gars yi ñu ngi naan jaay garab ñun tuddee wuñ ko jaay garab ñun délivrance lañ ko tuddee quoi dañuy délivrer médicament ah boo ko waxee. waaw ah, on délivre. baat baatu tubaab nga indi. Ah. mais loolu soo ko doon wax ci wolof lan ngay wax. joxe. mais ki la ku la jox. Mhm. dara. nga jox ko xa mu jox la nga jox ko mu jox la xaalis. maanaam vendre si boppam moo rafetul ci pharmacie. ah mais loolu la pharmacien bi def pharmacien day délivrer. Euh, Cheikh Saliou Dieye li nga doon soo ko bañee dafa fekk nga gën see ñaaw. non dañ ciy kontaan xam yu xam nga way boobu. xam naa way boobu. ku ko way. <laughs> Euh, bon léegi euh, Cheikh Saliou. Mhm. yéen yi. Mhm. fi mu toll nii mbas mi lëmbee àdduna bi. Mhm. war ngeen si mën yëy yàbbi lan nga ah. siy wax. waaw ñun pharmaciens yi d'abord balaa may wax ci mbas mi damay euh, rendre damay maanaam hommage famille ñi nga xam ne seen euh, seen doom yi wala seen papa yi wala seen yaay dañoo wàññeeku ci mbas mi. waaw ñaar leen suuf sedd seen kaw. amiin amiin waaw di wax nag tamit mbas mi boo déggee ñu naan mbas mi euh, ay traitement. Mhm. ay diw am na cas guéri tant de cas ñoo guéri ñii ñoo wér ñii ñoo wér pharmaciens yi ñoo nekk ci ginnaaw. waa bu dee wàllu traitement kese parce que pharmacien ku wax pharmacien day wax médicament. dëgg la waaw ah, pharmacien mooy médicament. fi mu toll nii euh, mbas mi. lan lañ koy fajee nii. waa mbas mi nii euh, si loolu laa jëm nii parce que mbas mi paj gi sax étape la waaw parce que tey jii nii euh, di nga xam am ñoo xam ne dañuy ñëw am mbas am am am am feebar bi hospitalisé leen pendant huit jours ñu wér. Mhm. ñi nga xam ni pendant onze jours. Euh, ñu wér ñii pendant neuf jours ñu wér ñii pendant dix neuf jours ñu wér léegi si lool laa laa bëgg a ñëw te ñi nga xam ne pendant huit jours dañuy wér ba ñi nga xam ne dañoo teel a yëg doomu jàngoro bi teel a mu teel mu ñu teel a yëg symptômes yi xam ni seen bopp day métti wala seen yaram tàng ñoom une une température ba nga xam ne mu nekk na 38 au plus wala 38 ñu dem euh, ñu defal leen test ñu positif ñooñu bu ñu demee rek automatiquement ñooñu huit jours la ñu am parce que dañoo teel a yëglu. ñu teel leen a saytu na leen traité léegi ñi nga xam ni 19 jours yi mooy paa ñi nga xam ni am nañ at maanaam 80 ans jëm kaw boo amee 80 ans jëm kaw kooku sa sa sa durée d'hospitalisation mën na nekk ba 19 jours. fukki fan ak juróom-ñeent fukki fan ak juróom-ñeent ñi nga xam ni nag hydroxychloroquine bi lañuy jël jël hydroxychloroquine dama siy wax tuuti maanaam principe actif la léegi médicament bi si boppam moo tudd plaquenil wala Imard. affaire yooyu noonu quoi mais loolu mooy presse active léegi euh, pour euh, ñi nga xam ni hydroxychloroquine la ñuy jël waaw ñooñu noonu mën na dem ba 11 jours. fukki fan ak benn fukki benn. Mhm. mais ñi nga xam ne dañuy jël association bi hydro euh, hydroxychloroquine ak azithromycine ñooñu mën na dem ba 9 jours. waaw loolu ci traitement bi. kon kon fu mu toll nii li koy faj rek mooy ñaar yooyu nga wax. waa li koy faj waaw mooy ñaar yooyu. ñaar yooyu lañu amagum daal ñaar yooyu lañu amagum. waaw lañu amagum te bon wérul ni que moom moo koy faj comme ni mu wéree ni beneen euh, garab dafay faj euh, feebar bi waaye daal moom lañ njort fu mu toll nii ne am na si pexe. pour l'instant ñaar yooyu daal mooy diminuer la ce qu'on la charge virale. charge moom mooy. doomu jàngoro bi bi nekk sa yaram. waaw moo koy wàññi di ko wàññi ba mu jeex. moo tax ñu lay testé nga négatif ñu la wér nga dawal ñibbi. est-ce que euh, yéen fu mu toll nii ñaari garab yooyu. yéen lan ngeen si def yéen yaa leen koy defar wala yéen yaa leen da ngeen koy jaay rek lan ngeen si def. non pharmacien mooy defar garab parce que pharmacie ñu naan pharmacie c' est l' art la science. mais non pharmacien Sénégal laa wax. non xam naa ne industrie pharmaceutique mooy defar loolu. moom aw ma benn benn jafe-jafe mais li ma wax mooy pharmacien u Sénégal si garab yooyu nga tudd nii ay Plaquenil ak yooyu ñoom. ban cër lañ ci am. mais Plaquenil bi nga xam ne ñoo ngi ci defar ñoo ngi defar 2000 des médicaments ñoom dañuy defar loolu. d' accord direction des pharmacies mais yéen pharmacien. mais ñoom ay pharmacien lañ. yow yow laa yow ah, tey par ah, exemple yow ah. yow ban pharmacie nga nekk. man maa ngi dos. dos léegi seen pharmacie boobu est ce que dafay defar garab. noonu non foofu noonu dina defar euh, garab mais euh, préparation magist kii officinale lay doon quoi. Hmm. maanaam li nga xam ni comme ça mën nañ jël garab boo xam ni. Euh, jël benn pommade comme Micolex wala benn ak benn comprimé garabu saan. Mhm. pour pour euh, pour euh, war waraan xam nga war waraan. waraan war waraan li dugg si yaram nii. war waraan waaw war waraan mën na la dal ñu jël ab genre pommade defar ko ci biir pharmacie bi jigéen jaay ko. Ah, yéen pommade rek ngeen mën defar. non mën nañ defar defar nañu parce que boo tey jii boo duggee fac médecine suñu laboratoire yi di profité tamit di nuyu son professeur yëpp yi nga xam ne ñoo ñu ba ba jamono ji xam foofu boo duggee dañuy defar lu bari aspirine dañ koy defar dañuy defar ay vaseline. dañuy defar est biir tey tey biir pharmacie yi fii dañuy defar ay aspirine. biir pharmacie. Hmm. non ñun suñu pharmacie defarul aspirine ci biir. yéen seen pharmacie pommade war-waraan la mën defar. non pommade war-waraan lay defar. boobu rek la mën defar si garab. waaw moom moom daal man laa fa defal ay daquin ay daquin ak yooyu bon daquin moom ay alcool la ak yooyu. daquin c'est bon parce que. waaw ah, non daquin kenn waxul euh, sa euh, Cheikh Saliou ñun. Euh, am na ay jamono ñun senegal euh, suñu garab maanaam li ñu si doon jéegaane yemoon na ak ñun li ñuy defar. suñu garab ñun suñuy garab am na ay jamono ñun dañu doon defar ay garab. dañ doon jéegaane gaa mais dañ doon defar comme yan garab ngeen doon defar. ay garab yu mel yooyu ngay wax ay yu mel ni ay euh, yenn pomaat yi. Mm-hmm. yenn euh, aspro yi ak yooyu. Ah, ah. ñun dañu doon defar ay jamono. Mm-hmm. mais fi mu toll nii ñun li ñuy jéegaane moo ëpp li ñuy defar. waaw loolu ba léegi loolu c'est depuis loolu yàgg na maanaam li ñun lu ñuy jëli moo ba léegi nii ma wax yoon nii moo ëpp. est-ce que loolu euh, maanaam xam nga garab moom suñu yitte la ndax suñu wér-gu-yaram mm-hmm. euh, te wér yaram moom euh, dafa ànd ak feebar mm-hmm. ak wér te feebar ak wér diggante bi garab da cee nekk kon ah. garab lu ñu yitteel la mais tey Cheikh Saliou ñun ban yoon la ñu war a jël ba gën a mën a moom suñu bopp si wàllum defar suñuy garab waaw non damay dëggal sax li nga wax parce que la santé est un capital elle est primordiale. c'est le premier capital. Euh, euh, c'est un bien durable que l'on peut s'accroître voire maintenir aussi par des investissements loolu damay dëggal ci li nga wax ban yoon maanaam lenn rek la ñu mën def bind ay affaire ay comme ça ay projet état bi financé ñu ñu ubbi ay firme ay ay ay genre euh, industrie pharmaceutique yu bëri bëri bëri dooleel jeunes comme comme ni ñu créé woon ay université scientifique dooleel jeunes yi effective effectif étudiant fac médecine yi jox leen les moyens qu'il faut tamit ñu te uti xam-xam. mais léegi est-ce que yéen tey mënu leen yéen def seen i pexe ku mel ni yow jàng nga pharmacie ba génn tey nga jël yeneen ndaw yoo xam ne yaa leen jàngandoo ba génn. Hmm. ngeen def tëgg seen projet. tàmmalee lu lu lu lu yemamaay loo xam ne yéen antan ngeen ko. Hmm. Euh, mbir mi tàmbali loolu mënta mënta ne. waaw mais récemment rek gars yi comme gel bi nii. Hmm. Euh, gel euh, les étudiants de la faculté de médecine. dafa nañ ci lu bari mais tey misaal bu baax nga joxe ah. tey eh, euh, yow mënoon nga jël ay ay ndaw. Mhm. ngeen teg seen kuréel gu ndaw. tàmbali defar ay gel. waaw mais commencé nañ ko. ba premier lot bi génn na. d'accord mais xam nga nekkagul benn. industrie. waaw benn kuréel boo xam ne mhm. da ngeen ko teg. këru liggéeyukaay boo xam ne mhm. maanaam penn PME boo xam ne dañ fay xëy di fa wàcc xam nga nekkagul lool ah, tey léegi est-ce que tey mënul am Euh, état gaa li nga wax man ànd naa si. Mhm. mun nañ jël yoon boobu état mhm. financé ay jeunes mais tamit jeunes yi financé seen bopp si jaay seen téléphone. Mhm. def ay pexe seen montre. ne ñun dañuy defar industrie tàmbalee tàmbale euh, defar ay gel mun na nekk. loolu mën na ne mais day laaj bu grave. loolu laa si ànd. Ah. tey euh, misaal. Babacar Ngom. bu Sedima. Ah. moom day toog fépp di ko bi muy tàmbalee ay ginaaram. lu tuuti ngunu ginaar la tàmbalee. mais tey gis nga affaire bi yéeg na ba si kaw. macha allah dafa mel nag ñun suñuy étudiant mhm. Cheikh Saliou. Mhm. ñemewuñu yoon woowu. non ñeme nañu yoon boobu te kat. foog ñu pousse leen. étudiant yi. Hmm. maanaam foog ñu pousse leen doole leen ñoom fit mën a def loolu. aywa léegi beneen bi euh, Cheikh Saliou Dieye mooy wàllum euh, université yi école yi yooyu yëpp tëj na mais foog ñu ubbiwaat. waa waaw léegi ubbiwaat boobu yow ban xalaat nga seen. Ah, ubbiwaat bi de man euh, vraiment je suis pour. parce que primo euh, université bu bu tëjee rek. Mm. wala école yi tëj loolu mooy année blanche. te année blanche day impacté économiquement ci état bi. te déjà déjà mbas bi rek lu mu yóbbu ci. Mm. économique bi lu mu si laal dafa bari léegi boo ci dollee année blanche. Mm, non ça sera léegi man je propose man vraiment. Mm-hmm. ñu ubbiwaat les écoles ak les universités. ah non loolu moom xam nga foog ñu ubbiwaat ba sax am nañ benn euh, date boo xam ni jàppagum nañ ko 2 juin euh, pour ñenn ñi tàmbali mais donc loolu d'accord nañ si ah. mais léegi nag si yan anam yan ah. condition yan matukaay defe naa foofu la kaw léegi léegi primo man amoon namul avis sama avis quoi laay joxe primo étudiants yi ba ñuy jógee université am nga dañoo état état moo débloqué ay déployé ay ay bus mm-hmm. à travers le directeur du COUD moo koy nuyoo sama xarit la euh, le DG Abdoulaye Seydou moo koy nuyu de passage mu dajale ay ay comment dirais-je ay bus cinq departement yi Sénégal yëpp. Mhm. ku nekk mu yóbbu la fa mu yóbbu fa ay bus. Mhm. ñoo jël étudiants yi yóbbu leen seen seen département yi. waaw léegi nag primo balaa ngay waxu ubbi da ngay waxu transport li jëlee étudiants yi seen kër indi leen université si loolu nga njëkk gérer état dina débloquer ay moyens parce que c'est parce que mais. ça nécessite beaucoup de moyens day laaj xaalis bu bëri. étudiants yi mënuñu indi seen bopp. non étudiants yi am na ñoo xam instant yii amatuñu xaalis pour ñëw étudiants yi pour sama proposition laay wax quoi. Hmm. peut-être am na ñoo xam mën nañu indi seen bopp am na ñoo xam mënuñu seen bopp. ñi mënul indi seen bopp ngay wax daal mais ñi mën a indi seen bopp mën nañ ñëw. non dama bëgg wax comme niñ demee ñu ñëwaatee noonu. Hmm. loolu xalaat la. waa léegi bu ñu yóbbee bis yi foofu noonu ku nekk sa département comme ça ñi am trois ça la population yu nekk département bi du nombre. léegi bu ñu paree ñu ñaar bu ñëw nag ñëw bi foofu mooy problème bi parce que bu ñuy ñëw euh, moo xam agent du cours lay doon moo xam professeur de l'université lay doon moo xam étudiants yi lay doon maanaam bu ñuy dugg si bu ñuy dugg si dañ leen di defal euh, comment dirais-je test dañ leen di jël thermoflash parce que euh, université boo xoolee sept bunt sept porte moo fa comme Cheikh Anta Diop bu ñu jëlee exemple Cheikh Anta Diop sept porte moo fa ne dañuy jël porte bu nekk teg fay agent de santé dispositif boo xam bu baax boo xam ne ay thermoflash ay gel alcoolique ay masque port masque masque si boo xam day nekk obligation fépp ci université bi te tamit en plus étudiant bi dafay nekk un acteur un acteur bi nga xam ni parce que tamit état bu defee sacrifice rek ubbi affaire yi malgré la situation aussi est critique état def sacrifice ubbi affaire yi ubbi waat école yi maanaam pour jàppale étudiant yi la mais étudiant bi si boppam dafa war a nekk acteur acteur bi nga xam ni il, va œuvrer pour une conquête persévérante et lucide d'un équilibre d'un étudiant avec ce qui l'entoure maanaam mhm. tey jii day euh, day dem nekk acteur day dox maanaam day sensibiliser sax moromam bu ko jegee nii mun la mu ah booy ma jegee mbas mi nekk acteur ci boppam maanaam ñëpp conscience loolu noonu foofu mu université la mais bu bu ñëwee tamit ci école primaire yi foofu foo ñu wax ci ak euh, lycée yi foo ñu wax ci primaire yi moom moo xam naa ñoo gën a neex a gérer mhm. parce que foofu déjà euh, prof seen maître parce que président nee na euh, classe d' examen yi ñooy njëkk ubbi les classes d' bu njëkkee ubbi genre comme ça nga am benn benn genre euh, élémentaire bi quoi am ñaari cm boo amee ñaari CM2 da ngay am peut être dix professeurs dix maîtres dix nga am ñaari CM2 ñaari cm yi mën a nekk cent vingt cent vingt yooyu donc mën nga ko diviser par dix professeur bu nekk. mën naa yor par exemple douze élèves par salle ñu bu ko dañuy mën a respecter la distanciation kii. sociale sociale. Mm. xam nga. Mm-hmm. ba pare nag première cours bu mu bi ñu leen di jàngal mooy cours de sensibilisation la sur le coronavirus te tamit ñoom tamit dañuy sol masque. force dañu sol masque. obligato obligation lay doon. aywa sol masque bi moom daanaka. waaw mu toll nii euh, farata la depuis bi ko ministre génne. aywa euh, Assane. yow euh, fàttali ñu CONAMAS mooy lan. waaw CONAMAS c'est mooy confédération nationale des artisans et des maîtres apprentissage du Sénégal. yow euh, wuude nga da nga am euh, foo xam ni fa ngay yëngoo si loolu loolu nga jàng moom nga xam. bon euh, métier wuude je l'ai fait presque depuis 1972 au village national de Soumbédioune fa laa ko jàngee. bon ba léegi samay doom la ñuy def ba léegi man j'ai une entreprise dénommée Tànneef. Mhm. donc daf may permettre ma yëngatu physiquement liggéeyatuma. mais avec entreprise bi maa ngi yëngatu. aywa tey say say yitte bi tax nga ñëw fi lan la. bon sama yitte mooy euh, Conamas moo ma yebal. Mm-hmm. parce que Conamas c'est une confédération boo xamante ne bi nga ko taxawalee ak léegi ça fait bientôt deux ans jot nañu suñu agrément euh, d'ailleurs même au passage ma di la wax ne y a un certain Abdou Diouf qui qui vous connaît très bien mi ngi lay yóbbante nuyoo. Mm. moom moo initié Conamas. ñu tenir benn assemblée générale ak ay fédération ak association ñu tenir benn assemblée générale à Thiès ça fait Euh, jóge fa euh, def benn plan stratégie def ko à Mbour jóge fa def validation bi à Kaolack sa fait même pas trois mois donc Casamance euh, mi ngi toll ci actuellement presque plus de mille quatre cent et quelques membres quatre membres xamante ni officiellement vendus sur le plan national ak sur le plan international parce que dañu prôné li may faral di wax rek nous avons des artisans migratoires parce que tey boo xoolee tey ñi nga xam ne ñooy ay métier dem à l'immigration ñoo ñëpp c'est des membres représentants euh, de la CONAMAS au niveau de leur euh, de leur. Euh, léegi waa CONAMAS ñoom bi ñu la yebalee. Ah. ñoom lan lañ bëgg nga leeral askan wi. waa li ñu bëgg ñu leeral ko mooy d'abord CONAMAS dafa taxaw. bon officiellement taxaw na léegi ak. am ay perspectives. loolu seen mbiru bopp la. loolu suñu mbiru bopp la ak ak lan. ak ñu ak ku bëgg a adhéré ci biir CONAMAS nga ñëw adhéré biir CONAMAS. léegi da ngeen di wax ni artisans yi ñoom ñëpp. Euh, am na kuréel goo xam ne tey pare na pour ëmb leen. Mhm. ba pare li leen yitteel. Mhm. kuréel gi ci dox. ci dox bon euh, léegi ñun dañu gis ne que euh, réew mi yow 72 ba léegi yaa ngi koy wax yaa ngi ci wuude. Mhm. mais affaire bi dafa dafa dafa taxawul ba yegg niveau boo xam ne tey waa Sénégal ñoom li leen gënal moom mooy sunu ay mbir wuude lu tax loolu. waaw xam nga loolu dafa am li ñuy wax dafa am politique état. c'est-à-dire euh, euh, li ñu man mooy dafa am ñu ñu yilif c'est-à-dire ñun des acteurs. kon dafa am échec si wàllu politique gu état jëmee si artisanat bi. am na. Hmm. parce que bi may ñëw sax damay wax ne doléance yi ñu may yónni yóbbante organisation professionnelle yëpp may yóbbante xam naa ne xajul ci émission bi mais ni ñu bëgg yëf yi doxee nii euh, doxewu nii. léegi yéen da ngeen jàpp ni que ministère yi ngànk artisanat boobu ba léegi. doxaluñ ko niñ ko war a doxalee ba yéen ngeen gis seen bopp. waaw xam nga li ñuy wax sax d' abord mooy ministère yi mu ngànk artisanat ça veut dire artisanat dafa war a mën a am ministère bu boppam mënul am ñaari ministère mënul lëkkaloo ak leneen. Ah, lu tax. non parce que artisanat dafa am particularité boppam. mais lépp am particularité Assane est-ce que affaire bi du euh, teg ay euh, euh, jéego teg ay doxalin. changé ko kenn ku ne gis sa bopp. mais loolu ma jox la misaal. Mm-hmm. tey réew mi ëpp doole si wàllum euh, culture si mm-hmm. àdduna bi mm-hmm. Amérique la mm-hmm. foofu boo fa demee ministère culture amu fa donc mbir bi du du doon bon artisanat bi na bokk fii nañ ko génnee nañ ko ber nanga mais est-ce que système bi ah, il faut changer le système parce que tey jii damay wax souvent ne xam nga ñun dañuy wax ne l'artisanat est un secteur informel baat boobu man souvent dama koy bañ parce que mënuloo lekk ci benn réew nga wax ne 80 pour cent du secteur informel nga ne da nga bëgg émergence nga ne da nga bëgg croissance te doo leen formaliser maa ngi nuyu le ministre au passage barki dem def na une sortie ñu am lu bari lu ñu ci saluer ci sortie bi mu defoon mais damay wax ne bu ñu nee dañu bëgg formaliser la secteur de l'artisanat dafa laaj ay réformes. bon léegi xam nga euh, Assane. Mhm. boo boo buggee nga concret. Mhm. mooy liggéey bi léeg mhm. dafay jaar si euh, nit ki. li muy def xam na ko. ñu koy former. bien di ko tàggat. mu am xam-xam bu méngoo ak jamono tey fu tubaab defaree dàll wuudewu Sénégal mën ko defar moom bien sûr benn mhm. ñaar mu am euh, jumtukaay yi nga xam ni moom la ñëpp soxla mhm. parce que liggéey am na fa boo fa tollee mhm. dootul ay yëfu loxo dootul ay yëfu tànk yëfu machine il faut aller vers bien léegi léegi léegi beneen bi tamit euh, Assane mooy euh, li nga wax sànq affaire formalisation bi te foofu. ñëpp dañu war a bay seen waar. bien sûr du état rek parce que état moom. état li muy wax dafa informel. mais am na loo xam du la ko nangul. parce que tey boo buggee ubbi. da ngay am registre de commerce. te registre de commerce boobu. état mooy identifier na la. xam na la. formel nga. am na loo fay pour loolu. te fi nga toog. da nga fay fay juuti. mais c'est insuffisant. non loolu laay wax ne. moom état am na wàll bu muy def. mais yéen ñii tamit. est-ce que li ëpp ñan ñoo war a nekk ñi war a nekk ci kanam est-ce que ministère la walla yéen artisans yi. non ñun artisans yi ñoo war a nekk ci kanam cest à journée boobu dañ koy réclamer il faut ñu am journée. mais lu tax amul mais loolu mi ngi dépendre ci état. non non man loolu laa àndul nag. waaw waaw d'accord léegi may ma ma wax la parce que foofu ñun tey li organisation professionnelle yi bëgg a def mooy dem vers une journée de l'artisanat parce que mënul ñàkk parce que mënuloo def mënoo yor Sénégal. Ah, mais lu tax CONAMAS ñoom mënuñu ñëw ne ñun. 3 janvier bu nekk mooy sunu journée de l'artisanat lan moo leen ko tere def. mais du ma Konomas du ko jël xam nga bu ñuy jël dañuy jël dans l'ensemble dañuy jël secteur bi. mais foog mu tàmbali. waaw loolu parce que boo buggee xaar secteur bi xaar ministère xaar état Assane affaire bi dafay xaw a xam nga xam nga fi mu nekk nii émission bi dafay dafay véhiculer ay message cest bi may ñëw ay nit dañ maa yeb ma boole ak sama xelu bopp mais journée de l'artisanat boobu dañ koy réclamer. et pourtant am na sax ñu ne sax pourquoi ne pas faire des assises sur le secteur. non mais bon assise baax na. mais mais surtout journée de l'artisanat mm-hmm. Assane. Mm-hmm. pour man ñi koy réclamer. Mm-hmm. dañu xamul lan mooy seen cër. seen cër mooy ñoom ñoo ko war a sànc. léegi gis nga ñun sunu sunu état yi. bu la kenn nax léeg boo toppee seen ginnaaw di daw doo leen jàpp. évidemment. da ngay ne si waar wi. ñu gis ne ah ah ñii de njëkkate seen journée bi am na solo. nga gis leen ñu daw fekk si la. waaw si sa donc amul tey lu mën a tere si réew mi Sénégal. kuréel gu mel ni Konomas. jóg décréter seen journée de l' artisanat bu jotee. ñu invité président la république. invité ministre jël ay jël ay initiative initiative mooy tax dara taxaw. bokk na ci perspective yi ça veut dire xam nga damay wax ne dafa bokk ci perspective yi. non non ñi réclamer journée de l' ne leen. waaw dañ bàyyi réclamer bi. jëmmal ko. parce que seen cër la yow li li nga moom bu ko réclamer évidemment demal def ko mhm. amul lu mën a tere doomu aadama si réew c'est parce que ñun nekk ñu réew mu ñuy buntu xatal nit ñi si lii doo ko fi def lii doo ko fi créer mhm. Mhm. bu la neexee suba ngeen ni 3 janvier ngeen décret ko 3 janvier mooy journée de l'artisanat bu président ñëwee xayrul bu ministre bi ñëwee xayrul ñun ñu def ko amaana fileeg at bu ñu commencé gis ni que mbir mi mi ngi dem ñoom dañuy ñëw asan loolu seen sàggante la waaw non loolu moom loolu moom organisation yëpp ñu ngi xalaat parce que du benn organisation moo nekk actuellement au Sénégal bari nañu. il faut mu am ñu jël lead bi nag. waa loolu il faut ñoo euh, autorail boo gis. waaw moom bopp. loolu moom bokk na ci yeneen wagon bokk na ci Konamas mën na doon bopp bi. Mhm. xëcc yeneen wagon yi. évidemment loolu nag moom la Konamas fas yéene def ko pour ñu créer. jàppagu pour jeune non mënuñu ko jàpp une date parce que ñun déjà d' ñu ngi amoon benn foire bu ñu waroon def à mais problème pandémie bi moo tax ñu bàyyi lépp parce que foire boobu ci lay wax ne sax ci la ñu profité parce parce que Casamance li mu war a def yëpp def na ko jaay nañu ay cartes euh, nous avons beaucoup de représentativité au niveau international ba noppi fi mu ne nii actuellement def nañu euh, li ñuy wax le plan plan stratégie bi liggéey nañ ko validé nañ ko à Thiès bari na ay sorties yu bari yu ñu def. pour la Casamance mais yooyu yëpp ay plans stratégiques mm-hmm. ay perspectives ay sorties. Mm-hmm. yooyu yëpp Assane seen mbiru bopp la mais lan mooy jariñ artisans yi ak réew mi loolu il faut mu nekk ci table bi ñëpp gis ko te bi jiitu. wax nga ko de. mooy journée de l' artisanat fu mu daw léegi nag si biir journée yooyu ministre bi su ñëwee suñ ko galgalee dañuy commencé nag ne bon léegi assises yi kañ nañ koy teg jéem a yéegal affaire bi beneen niveau mais bu ñu toogee rek di jàmbat. di sotti te waroon def. du dem de. mais ñun nag ñi ngi def ça veut li may wax ñun ñi ngi def. mais def leen de l'artisanat. journée bi dinañ xam nga Casamance bi ñu juddoo ak léegi bi ñu jotee. suñu récépissé bi ñu nga def journée de l'artisanat te amoo récépissé. ay këyit la noonu rek de. waaw mais fii bu la neexee nga xëy def sa journée de l'artisanat kenn du la ko tere. waaw mais mais li Assane loolu man ko maa gëm naa ko parce que xam nga man je vous encourage parfois gis naa <laughs> <laughs> ko bàyyi. <laughs> lan la woon lan la woon lan laa doon. non gis naa nga def ki ay euh, xaw ma exposition la woon xaw ma foire benn bi ma ci lay ba mu jeex mooy bi nga doon def fële ci place. exposition du savoir faire Sénégal. du savoir faire Sénégal loolu xam nga duñ ko bàyyi mooy sunu man-man ñun il faut il faut ñu bon léegi euh, li nga wax am na solo donc ñi la ñi la yebal. tamit mhm. ñun tam yebal nañ la si ñoom. on va le faire. ne leen daal. Mhm. journée de l'artisanat nañ ñëw. jëmmal ko. ñun ñii luñ si mën a bay waar. Mhm. dinañ ko si bay. on va le faire incha allah King. Mhm. Cheikh Saliou sa euh, dénkaane message bi nga jeexale lan la. waaw man bi may jeexalee moom dama koy accentuer sur damay genre damay ñaaxaat sénégalais yi. Mhm. waaw damay ñaaxaat sénégalais ñu respecter les mesures barrières. waaw di raxasu ak gel di sol masque masque bi si la bokk de. Euh, professeur Seydi maa ngi koy dégg keroog muy wax ouvert sol lunette parce que c'est normal euh, virus bi ci gémmiñ lay jaar ci baxan wala ci bët. Hmm? ci muqueuses yooyu lay jaar. mais professeur rectifié na de. waaw non ba mu rectifié dani maanaam comme ñoom euh, comme nit ñi ñoo ngi sol masque comme ça yow nga sol masque ma sol masque kon jarul may sol verre. ah mais bu fekkee. non que boo solee masque yow te déjà doo doo ma wàll du la wàll. waaw mais bu fekkee virus bi. dafa nekk ci communauté bi xam nga transmission communautaire. xamuñu fu mu jógee non pour maanaam comme nga jaxaloog nit masque boo gisee masque bi maanaam nga jaxaloog nit koo xam ne solu masque mu wax tifli la wala mu tisóoli affaire noonu wala mu sëqat affaire bi dal la. Ah, d'accord mais léegi euh, euh, Cheikh Sall bu fekkee transmission communautaire dafa am. Ah. virus bi mi ngi ci biir askan bi xamuñu fan la ne. Ah. te comme dafay jaar ci bët. mais ngelaw mun na ko indi dugal ko sa biir bët. kon kon veer yi. no non pas ngelaw. bus hmm. bi rek lay un rek lay. ah waa léegi ngelaw ngelaw mënul yóbbu dara si un maanaam pas ngelaw jële fële virus bi indil loxo. no ngelaw virus nekk si yow laa la wax. Ah. wala par exemple yow nee nañ virus bi mun nga teg sa loxo fenn mu ne fa. Ah. ngelaw mën na ñëw si un mètre kay xanaa yékkati ko dugal ko sa bët. non non pas mu jëlee ko suuf ne. non mu nekk si kaw tey nga nekk si rampe escalier laa la wax. non virus mënul contaminé noonu euh, corona du contaminé da ngay nit ki wax maanaam boo xee peut-être ngelaw ak tuuti ngelaw du passé un mètre. Mhm. noonu la lay contaminé mais pas ay ngelaw comme ça ngelaw jóge fii wala fii jóg kon laal la loolu mënul ne. kon kon virus yi mënul ne comme poussière boo xam ne dafay dem. kon ñëpp corona nañ parce que ñi yóbbu ñëpp euh, bu ñu wàccee dañu leen yóbbu dugg leen ci hôpital yi. te am na ngelaw. Euh, mais. Euh, prégo waaw waaw boobu mooy ñaareel bi. ñaareel bi. Mhm. damay waxaat tamit euh, ñu bàyyi comme euh, président président Macky Sall mi gars yi naan chaque instant moom la chaque instant ñu ne non président dafa war a def lii dafa war a def lii président maanaam li mu war a def. mu ngi koy def c'est situation bi dafa critique président lu mu war a def xam xam lan la def. président def na lu bare bare bare bari ci ci mbas mi. waaw mais président tamit dafa am lu muy wax saa su ne. waaw su defee it danaan. Mhm. li des moo ëpp. waaw mais loolu amaana ñiy jàmbat. li des la wax. non ñuy jàmbat déedéet parce que am na ñoo xam pour jàmbat. waaw mais am na ñuy jàmbat na ñuy jàmbat dëgg. am ñoo xam ne non am ñoo xam Cheikh Sall am na ñuy pour jàmbat am na ñoo xam dañuy jàmbat ndax tiit dañoo tiit. si loolu moo nekk am na ñuy jàmbat pour jàmbat am na ñuy jàmbat pour tiit mais am ñuy jàmbat parce que te li ñuy jàmbat dëgg la tamit. non da nga koy nangu non li ñuy jàmbat peut-être mën na nekk. yow li ngay wax ni président wax ko de président saa yu defee dara bu ñu nee baax na. da danaan waaw waaye li des moo ëpp. waaw loolu parce que ñun suñu réew yi. waaw loolu am na affaire yi matul waaw ñun eh, eh, oui de l' émergence. dañuy émerger di dem maanaam dañuy jóg. te loolu la ñuy ñaan yàlla. ah li des nag léeg-léeg ñeen ñi jàmbat ko parce que. parce que yow li des li des fekkee dafa dal sa kaw. non bu euh, fekkee li des dafa dal sa kaw da nga koy yëg de. waaw ah, baax sax dëpp koy yëg. xam nga tey dafa mel nii euh, ndimbal yi ñuy joxe. Mhm. xam nga ku jot. Mhm. yow di nga ne alhamdulilah mais am na ku jotul. waaw kooku affaire day dal si kawam. man jotuma. non yow so yow aajowoo ndimbal. non ñaareel bi ñaareel bi nee nga nañ bàyyi lu ne ñu askan ñetteel bi lan la. waaw ñetteel bi damay def ay remerciements. jë da ngay jaajëfal kan. damay jaajëfal primo damay jaajëfal sama waa promo waa pros pros euh, pros farm. 2019. Hmm. sama promo promotion la. di jaajëfal tamit euh, euh, sama structure bi ma politique bi ma bokk. le maire national le mouvement des élèves étudiants républicains national. à travers leur coordinateur qui est euh, monsieur Abdoulaye Diagne. waaw waaw d'accord mais mais mais tam politique bi tamit. mën nañ ko mën nañ ko bàyyi. non non loolu yi ñuy yitteel tamit bon politique bi mun na tey daa gis nga kenn politique wul. non kenn politique wul jël teg yow xaaral ma ma may la tuuti nga. non mais nga bàyyi politique bi. non bàyyi naa politique ñëpp fu mu toll nii kenn déggu leen. parce que politique bi lañ sonn. nañ ñu bàyyi ñu xool te xool politicien yi comprendre parce que parce que ñoom yëg nañu damay ñëw fii. ku nekk jox na ma ay conseils. waaw waaw mais yéen ñëpp les gars vraiment <laughs> ngeen gën toog. bàyyi xaar tuuti parce que fu mu toll nii du jamonoy politique jamonoy lijjanti euh, sunu. waaw du euh, jamonoy politique aywa euh, Assane. yow ban dénkaane ngay jeexale bon dénkaane bi may dénkaane mooy xam nga actuellement secteur bi lépp paralysé wu. boo duggee biir Médina gis cordonnier yi. Mm-hmm. ñëpp a ngi toog. loolu dëgg la te dama naan Médina bu ma jëlee ci wàllu cordonnerie rek. Euh, zone industrielle la. Mhm. te la may faral di wax ne c'est des artisans migrants wacc seen kër ñëw nekk ndakaar ñu nekk fi en location euh, non seulement seen dëkkuwaay mais en location à travers les les ateliers kon dañoo soxla ku leen dimbali. parce que fi mu nekk ni kenn. mën xeetu dimbal ñoom la ñuy sàkku. bon ndimbal bi ñuy sàkku xam nga kii toog di daan dooleem du xaar ku ko dimbali mais bu ñu waxee ne am na ndimbal loo xamante ni jël nañ ko jëmee ko ci secteur artisanat lu mu tuuti tuuti ñu gis seen bopp. parce que ñoom léegi ban ndimbal la ñu wax ni moo jëm si ñoom. waa xam nga ministre bi dafa wax ne. Mhm. am na lu mu jël jëmee ko ci secteur bi. lan la xaalis la wala. am na xaalis bu mu tudd. tudd na 2 milliards ci télévision bi. Mhm. c'est insuffisant. mais li ci am solo mooy. tudd nañu ay masques dara doyul xam nga suñu réew mi. dara doyul c'est insuffisant mhm. tudd nañu ay masques masques yi euh, ñi ngi koy ñi ngi ciy ñi ngi ciy ñi ngi ciy commandé wax dëgg yàlla. suñu xale wàllu tailleur yi ñu ngi ci commencé gis seen bopp. Mhm. Euh, am na ñoo xamante ni am na ñu jot a defar. waa DER yi commandé nañ dix millions de masques. waaw waa DER waa DER commandé nañu loolu am na ñoo xam ñu ngi commencé di exécuter. mais li ëpp solo rek mooy euh, ñun li ëppal solo mooy artisanat secteur bi il faut que mu changer. parce que changement secteur mais ko war a du yéen. mais non ñun xam nga ñun du ñu jël ay initiative. Ah, yaa a les chambres de métiers non ñun li ñu man ni ñu koy def. chambre de métier yi tamit est-ce que nelawuñu tuuti. waaw chambre de métier yi dañoo nelaw. Ah, parce que nelaw <laughs> chambre de métier yi chambre nelaw bi mooy. Hmm. Euh, dafa am lu leen manqué. parce que mënuloo gis chambre de métier ci état yi nekkee. Hmm. état yu critique yi du. ah léeg-léeg boo métier mais da naan. est-ce que fii chambre de ah, métier la il faut chambre de métier yi ñun parce que ñun ñooy chambre de métier yi. man je ne suis pas un élu à la chambre de métier je ne suis une personne associée. mais ñun li ñuy war ci ci suñu organisation yi mooy dañuy jël nit ñi leen yóbbu ñu formaliser wu. Mhm. mais boo demee ci chambre des métiers yi xam ne amuñu benn moyen. dafa laaj ay réformes aussi parce que chambre des yi dafa boo xoolee depuis 1904 depuis 77 ba léegi. Hmm. Euh, euh, amul benn texte bu ci changé. donc donc loolu aussi waa loolu aussi dafa war a changé. te attention. Hmm. c' le président Macky Sall qui avait demandé à ce que ñu càmbaraatal ko les chambres des métiers. loolu dëgg la te bu ñu càmbar les. nañ ko. non defaguñ ko. ku ko war def. ki ko war a def mais ñoom ñoo war a jël ay décision ministre moo ko war a def ko war a def donc loolu loolu càmbar bi du du lu dul euh, bu waree. waa léegi ministre yéen bu ko waree def def ko est-ce que yéen mun leen jël seen initiative yéen ngeen bind président wax ko ni yéen lii ngeen xalaat si ay réformes si wàllu chambre de métier pour tontu. moom ñaax boobu mu ñaaxoon ne dafa bëgg ñu càmbaral ko chambre des métiers lu tax loolu lu leen ko tere def. waa xam nga ñun ci loolu la ci la ñu jëm. Ah, mais Assane boobu tamit yéen. ñaari at si lañ jëm si lañ leen dara tamit. xam nga lii dafa ñëw bloqué lépp. tey jii dara dox bind bind benn bataaxal président dem déposé ko loolu du amul blocage. une de mémorandum. loolu amul blocage. waaw waaw lu tax defagu leen ko. xel du doy. mais loolu lépp ñu ngi ciy xalaat ba ci Covid 19 bi rek. ay xalaat la ñu war a weesu tuuti nag nekk si ay jëf nag. gis nga actuellement fi nekk ñu ngi ci ay jëf mais jëf yi dafa am lu ko bloqué. mooy Covid bi. du non seulement bloqué bi structure yi ci boppam ñi ko yore ñoom ñoo ñu war a impliquer le secteur. impliquer les organisations professionnelles. comme ñan yan yan yan structure moo leen impliqué. disons le ministère. yéen ministère impliqué wu leen. non nous ne sommes pas du tout impliqués. Euh, chambre des leen. chambre des métiers yi impliqué ay maigre moyens la ñu yor. ñun bu may ci organisation professionnelle yi. Mhm. organisation professionnelle yi nga xam ne dañuy jóg euh, am am am euh, vocation national dañu war a impliqué ci li ñu def. ba noppi euh, attends Tunkara. ba noppi accompagner leen xam nga organisation professionnelle li ñuy def c'est-à-dire fi nekk nii lépp lu ñuy def état ñu koy defal parce que ñooy nekk ci à la base. di di léegi daal ay moyens daal ngeen di laaj. non xam nga xam nga xaalis ñu am nañu xaalis. parce que li ñu yor xeebuñu ko. lan ngeen bëgg. xam nga lan mooy problème bi mooy nañu subventionner les organisations professionnelles. subvention mooy xaalis. waaw ah, bien sûr. Ah, am ngeen xaalis nga subvention ñi ngi subventionné ay ay ay ay ay mi ngi subventionné ay kuréel ay ay ay direction pourtant nag président gis nañ ko mu def ay jéego. yu mel ni baax yu mel ni dem ba ngaay yendu foofu décrété ngaay euh, capitale de l'artisanat euh, pour man yooyu jéego la yoo xam ni. c'est à saluer yéen da ngeen si capitalisé wul daal. c'est à saluer non xam nga jéego yooyu à ngaay ngaay boo demee tey man ak je travaille avec les les les associations qui sont à ngaay ñun ñoo bokk lu ñuy benn objectif mais à ngaay ça ne fonctionne pas dara doxul boo demee ngaay tey ñoo gën a sonn ñëpp tey. ñoom journée boobu ñu fa defoon tout dernièrement rek euh, seen seen espace boobu ma xamante ni dañ ko defaroon pour animer ko pour ñu mën fa toog espace bi ba léegi ma nga fa bougé wul donc yooyu la ñu war a xoolaat. mais daal dañuy teg ay jéeg maanaam dañuy teg euh, fukki nit di gaz fukki nit di suul lool la. li wax bi daal mooy man li may wax mooy ça veut dire loo ko defal defal. te associé woo ko ci li nga koy defal. non loolu ànd naa si. li nga koy defal du aywa euh, delloo njukkal euh, Assane Mbow li mu dafa dafa wax nag dafa jeexalee lu am ah. solo. Ah. mooy nit. du defal ko rek moom moo am solo mais nga boole ko ci li ngay def mm-hmm. dafa am solo Nelson Mandela loolu doon wax ne euh, bépp dogal boo jël pour man te boole woo ma si mm-hmm. soo moytul dafay nekk contre man parce que man sama xel sama xalaat ak sama loxo bu si duggee rek soo moytul après sax yow dama lay tegee boor sax man ma continuer di dem mm-hmm. mais su fekkee yow danga may jox biberon rek wala nga sampal ma perfusion rek soo moytul man euh, non non du sotti sama damay faatu foofu mm. sax te biberon moom ku képp ku ko képp ku ñu ko seexal rek loolu mooy yow ba léegi yow màggagoo yow bébé nga delloo njukkal na Mbow ak euh, Cheikh wu Dieye ñi fi njëkkoon a ñëw léegi-léegi dañuy am benn euh, xaarandi su ko defee ñu dugal suñu yeneen gan yoo xam ne ñoom nag mel nañu ñoom Assane Mbow yi ñoom dañu jël ay initiative tooguñu rek di xaar dañu am loo xam ni xalaat nañ ko jëmmal nañ ko loolu lañu ñëw fii indil ñu léegi léegi si <laughs> Voici celle dont tout le monde parle. La maladie à coronavirus, qu'on appelle aussi la COVID-19. Si tu regardes bien cette image grossie au microscope, tu remarques que la cellule semble porter des petites couronnes. C'est ce qui a inspiré son nom, corona, qui veut dire couronne en latin. Mais pourquoi on dit aussi COVID? En fait, c'est une abréviation. Co pour corona V pour virus et D pour disease, qui veut dire maladie en anglais. La COVID-19, ça ressemble à une grippe. La plupart des gens qui l'attrapent font de la fièvre, toussent et sont fatigués. Les médecins nous disent que les enfants qui ont le coronavirus ne sont pas très malades. Mais t'as sans doute entendu parler de gens qui en sont morts, et ça doit t'inquiéter un peu, c'est que certaines personnes plus fragiles, comme les personnes âgées ou des gens qui ont déjà une maladie grave, sont plus faibles et peuvent avoir des complications s'ils attrapent le virus. Alors il est malheureusement vrai que des gens peuvent en mourir, mais il s'agit d'exceptions. Comme la COVID-19 est contagieuse, le gouvernement a pris la décision de fermer toutes les garderies et toutes les écoles, et il a encouragé tes parents à rester à la maison. a Il faut également éviter les endroits publics qui rassemblent plusieurs personnes. Plus il y a de gens dans un local fermé, plus les microbes peuvent se transmettre d'une personne à une autre. En bref, depuis quelques jours, on évite que le virus fasse le party avec nous. Bon, tout ça, ça peut faire peur. C'est normal. Mais rassure-toi en te disant qu'au Québec, on a agi très rapidement et toutes ces mesures-là visent à nous protéger. Surtout, il faut que en te lavant les mains souvent avec de l'eau et du savon, en toussant dans le creux de ton coude et en essayant de ne pas toucher ton visage ou celui des autres. Et tu peux aussi devenir membre de l'escouade antivirus. Comment En lavant les poignées de porte et d'armoire chaque jour chez toi, en fabriquant un jeu de conséquences qu'on donne à ceux qu'on surprend à tousser ailleurs que dans leur coude, ou en encourageant ta famille à se laver les mains Il y a plein de gens qui sont là pour nous aider, nous protéger et nous guérir si on attrape le virus. Il faut rester calme, se laver les mains et s'amuser quand même. delloo njukkal Bakar Karajo Diagne euh, si machine bi moom ak euh, sunu mboolee mu naataango yu ñu àndal si technique bi ñoom ñoo tax ngeen ñuy dégg di ñu gis sunu ñawkat moom mooy euh, Pape Si Diallo njiit création fii ci HLM Nimzat moom tam di ko delloo njukkal euh, Alioune mbay moom la ñu àndal si tey sunu ñaareelu jotaay fii si yitte ak njariñ Alioune mbay moom moo jiite kuréel googu nga xam ni fële ca Malika dañ ko teg ngir xeex mbas mi nga xam ni dafa dugg ci àdduna bi dugg ci réew mi Alioune di la nuyu la dalal la ziar. Euh, merci Tounkara salaamaaleykum. waaleykum salaam maa ngi nuyu ñëpp di la nuyu bu baax a baax. defal tuuti gel. di ziar waa Sénégal yëpp. di nuyu aussi fa ma jógee muy Malika di leen ziar bu baax a baax a baax euh, di wax wasi que ñi mbas mi dal di leen masaw bu baax di leen mm. ñaanal wér. ñi nga xamante ne ci ñàkk seen bàkkanit yàlla yërëm leen. amiin yàlla seen mbokk bu baax. Euh, Alioune yow euh, seen comité bi kan moo am xalaat bi. boo au fait xalaat bi mun nañ wax ni Malika yëpp a ko amandoo parce que dafa am benn cas bu bu fa am au niveau de Malika. Euh, yàlla dafa def bi ñu enregistré suñu premier cas au niveau du Sénégal mooy le 2 mars immédiatement dañoo xalaatandoo maire woote maire en personne moom moo woote mu ne ban taxawaay lañ war a am par rapport ak mbas mi ñëw fii ci lañu woo woo service santé bi woo ñëpp ñu taxawal kuréel googu def suñu plan d'action nag et ñun aussi lépp lu ñuy def dañ ko def en étroite collaboration avec service santé ba fa nekk comme que mbiru santé la ñun nous sommes des acteurs de développement lépp lu ñuy def it mooy dooleel acteur de santé yi fa nekk pour tout simplement xeex mbas mi. léegi yéen euh, kon le 2 mars rek yéen si ngeen teg seen comité. le 2 mars rek dañoo teg le 2 mars le 6 dañoo teg comité bi. le 6 ngeen teg le depuis 6 mars te boobu yow maire ne léegi yow yaa ko war a jiite. non waxul ne man maa ko war a jiite dafa woo. mbooloo Malika yow nan nga def ba jiite ko yow. voilà dafa woo waa Malika maanaam bi mu wooy waa Malika. dañu voté. dañoo voté ñu jiital ma comme coordonnateur. Euh, ñaata candidat ñoo amoon. trois candidats. yow nga gagné man ma gagné waaw. da nga politique wala. non du politique. <laughs> da nga campagne. <laughs> non campagne aywa léegi euh, léegi léegi Alioune. Uh-huh. Euh, bi nga jiitee comité bi boobu ba léegi lan nga defagum. au fait bi ñu jiitee comité bi boobu ba léegi maanaam bi ñu amee cas bi au niveau de Sénégal ñu teg comité bi ñu def taxaw seetlu def suñu plan d'action par rapport ak euh, service santé yi fa ne li ñu njëkk def moo di ne nañu xel nañu xool au niveau de Malika ñu def sensibilisation. waxtaan ak population bi tey mbas mi lan la parce que bi muy doog a ñun ñu comprendre ñu exactement corona bi lan la ci leen expliquer dafay sensibilisation ci ñëw wax leen naka lay propagé. sensibilisation bi da ngeen dem dugg kër par kër wala da ngeen dajale nit ñi dañoo def ay rajo crochet. ay rajo crochet rajo crochet. rajo crochet mooy jël oto def ci euh, ay haut-parleur di wax dugg ci mbedd yi fu nekk ñu dugg fa def ay flyers. tas ko ci dëkk bi def ay banderole aussi. Hmm. bon ba nit ñi comprendre exactement feebar bi lan la. léegi euh, Malika moom est-ce que dégg ngeen fa kaa. Malika ba léegi yàlla mu ñuy sutural amuñu fa kaa. Euh, léegi Alioune. Hmm. Euh, li liggéey bi xaalis bi ngeen fii def fan lay jóge moom laa lay expliquer maanaam Malika li fa am xam wax naa ko sama njëlbeen ni wax dafa exceptionnel parce que mbir ba mu amee rek dëkk bi ñëpp a jóg association yi. groupement yi maison de la femme ñëpp a jóg ku ci nekk la nga am nga indi ko ci maire bi teg ko ci loxo maire pour ñu jàppale lii ñuy xeex corona bi maire aussi lépp daf ko jël teg ko à notre disposition pour ñu jublu ci xeex bi. kon xaalis bi bi ngeen di euh, doxee fi mu toll nii waa Malika ñoom ñoo ko teg. waa Malika ñoo ko teg fi mu toll nii budget bi ngeen doxee gum yëpp ñaata la. bon budget bi instant bi mënuñ mënaguñ koo xayma parce que dañoo nekk ci ay programme ay perspectives di def. dañoo nekk di def di dem boo mayee tuuti ma expliquer la niñ ko procédé maanaam bi ñu defee sensibilisation yi ba pare dañoo commencé ñu ne ñu def taxaw seetlu ñu ne par rapport à Malika nañu xool fépp fu nit di daje ñu teg fa ay kit d'hygiène ñu génne lu mu 300 kit d'hygiène yoo xam ne loolu moom mairie bi moo ko def 300 kit d'hygiène boo xam ne dafay ànd ak lavoir gel antiseptique ay madaar ay ay ay ay saabu lépp fépp fu nit di daje ci Malika même marché yàpp sa jëkkër yi sax dañ ko fa def. poste de santé luy marché yab sa jëkkër mooy taabal yi ñuy teg ci mbedd yi ñooñu sax dañ jox ay lavoir ay kit d'hygiène ba pare boole ci ay communication aussi pour naka lañ koy utiliser. <laughs> waaw léegi mais yow kaddu gi nga wax léegi yab sa jëkkër ñooñu ñooñu di jaay foofu dañoo yab seen jëkkër. non non bul ñëw maanaam waxin la ñoom ñoo koy wax ñoom jigéen ñi maanaam hmm. marché boo xam ne nekkul ca marché bu mag ba marché boo xam ne ay quelques mètres. ñoo dañoo yab seen jëkkër moo tax ñu toog foofu. déet ñoom ñoo ko wax de. ñoom ñoom ay ah, yow yaa ko fi wax ñoom femme yi maanaam ñoom ñoo ñu wax ne loolu mooy marché yab sa jëkkër ñun ñu jàppee kon de bi ñu nekkee xale nag noonu loolu lañ dégg ku yab sa jëkkër daal mooy am mooy ne ci njaay moomu daal non non demeewul noonu waxin la rek waxin la ah waaye waxin am na lu mu junj de <laughs> bon léegi euh, waa mm, nag waaw kon leen bon bi ñu defee loolu aussi ba pare ñu bi ñu bi ñu defee euh, dispersing bi moment boobu sax euh, jàkka yi tëjaguñ jàkka yi yëpp aussi ak daara yeeg ñëpp dañ leen jox ay kit d'hygiène pour ñu préparer bool ci sensibilisation bu ñu noppee ci loolu aussi ñu gis waa service d'hygiène mhm. pompe dëkk bi yëpp désinfecté dëkk bi yëpp yëpp yëpp vraiment lépp nga xamante ni mu nekk en règle immédiatement aussi bu ñu déggee ne euh, cas communautaire am na ñu xaw a tiit changé suñu démarche tuuti parce que cas communautaire bu amee moo di ne nit ki mun na ko am du ko xam wàllu ko keneen ñu ne kon nañ changé perspective ni ñuy doxee immédiat li ñu njëkk def mooy dem ca marché ya nettoyé marché yëpp pompe ko def fa ay lavoir yu mag def fa ay agent ne leen képp ku fiy dugg impérativement na sol masque ñi fiy jaay aussi nañu sol masque obligation la ku ko deful doo dugg ci biir ñun bi ñuy jël décision boobu état waxagul ne port des masques obligation la ñun ñoo ko njëkk a def masque yooyu aussi mu am ay jeunes yu fa ne ay étudiants ñoom ñoo fi njëkk a ñaw ay masque fii mun naa wax Sénégal parce que ñun bañ koy def kenn xalaat ko étudiants ñoom initiative bi ñoom déjà ñu ko bokk ci communauté bi ñaw masque yi affaire propagé wu ñu def ci commande di ko distribuer bu loolu weesoo aussi poste de santé yi. ñaata masque ngeen distribué gum. bon instant bii nii distribué lu mot 2000 masques. ñaari yooyu fi mu jëm mooy ci lieu public rek ba léegi. léegi mooy garage clando yi nekk ci marché yeeg yooyu. Hmm. def nañ commandé 5000 masques. ba pare ñu zone 11 aussi bu Malika dafay liggéey ak ñun. moo tax mu teg beneen perspective mu ne chaque ASC 1000 masques. ñu commencé ko def zone 11 def moom tamit 2000 masques ça fait en tout 16000 masques parce que on a 14 léegi euh, poste de santé yi la si doon wax. poste de santé moom laa la wax ñoom bi ñu paree ñoom dañ leen jël en charge parce que dañ ne puisque tey ku feebar fa la jëm nañ am bët bu mag ci ñoom et doté nañ leen lépp loo xam dañ koy soxla ci wàllu gel yooyu ñu tuuse la ay dàll parce que benn infirmier wala kenn di ñëw foofu di delloo say dàll ci biti say dàll boo ñëw sa saa nga koy dugal dàll yi ñu leen jox moom la ñuy moom la liggéeyee bu ñu noppee ci loolu ñu jox leen ay thermoflash képp kuy dugg dañ lay xool bu ñu paree ñu jox leen ay surblouse seen yére ñu sol am na yeneen blouse yu mag yi ñu ciy teg yoo xamante ni loolu fu ci poste bi lay ah fu mu toll nii yow euh, Alioune Mbaye ñaata xaalis ngeen dépensé gum moom laa lay explique maanaam mënu ma ko xayma nii nii nii xaalis bi ñu ah, dépensé mais yow xanaa war nga am benn tableau de bord buy tax en tant que coordonnateur nga xam lu dugg ak lu génn fu mu toll moom laa lay expliquer maanaam xam nga comme ne moment bi dañ nekk ci xeex waaw mais xeex terewul nga xam lan moo dugg lan moo génn loolu mooy indi affaire yi leer de. waaw non dana de yow yaay comme yaay coordonnateur. non dafa leer yaay responsable non leeragul. non parce que bu leeroon. Aliou uh-huh. bu ñu la laajee ñaataa génnagum. waa duñ ko xam. moom laa lay expliquer maanaam xam nga tey bu dee kit d'hygiène yi ñu njëkk a joxe presque loolu valeur de 3 millions la. Mm-hmm. mais li ci des mun nañu wax ne lépp ay coût yoo xamante ne tey peut-être mairie bi dañuy soxla benn mbir ñu ne tey soxla nañ 100 pièces 100 paires dem indil ñu 100 paires teg. Ah, loolu xam nga. noonu la mbir mi di demee leneen leneen li ma wax la rek xaaj bi toujours naa la fu mu jëm bi ñu noppee ci loolu aussi ñu ne cas communautaire yi mi ngi gën a propagé wu ci Sénégal ñu ne am na benn couche bu vulnérable boo xam ne dafa nekk ci mbo ci population muy les talibés bu ñu taxawee seetlu ñu def recensement au niveau des daara daara yëpp ñu dem ci ñu am trente daara sëriñ bu nekk ñu waxtaan ak yow ne la lenn ñaari solution moo fi ne soit dañ lay delloo seen dëkk ñun ñu jël tous les kii charge delloo la seen dëkk. wala ñu jox la dund ko confiné xale yi ñoom ñëpp ñu ne à l'unanimité ñu ne nañ leen jox dund bi ñu vérifié ñu gis ne 27 daara moo fa nekk seen taalibe nekk pendant un mois ñoom ñëpp dañ leen jox dund jox leen xaalis dépense bi ñuy dem marché leen koy jox jox leen ceeb jox leen suukar jox leen dëwlin jox leen savon. lépp waaw loolu loolu si loolu si daara yooyu 27 daara yooyu. war nga xam. bés bu nekk daara bu nekk ñaata dépense ngeen fay def. par dix jours lañ ko doon def chaque dix jours ñu renouveler pendant trois fois. léegi dix jours bu chaque dix bu ci nekk dépense su neuf cent mille lañ leen jox. neuf cent mille pour pour euh, vingt sept daara yi. non non non waaw pour vingt sept daara yi. cent mille dix jours parce que dañ ko partagé. neuf cent mille dix jours léegi si weer wi loolu ñaata la. neuf cent mille dix jours ça fait wala deux millions et quelques. quelque bi ñaata la. no mun ma ko def calcul mental ni neuf neuf cent mille dix jours deux millions cent. Ah, ah lu tax nga mënoo def calcul. non mais maanaam xam nga émission bi ni muy demee nii aussi peut-être yow xam nga ne trois fois trois fois trois fois neuf jarul nga ma koy laaj. <laughs> trois fois neuf ñaata la. vingt sept. vingt sept. bon ah, Alioune. xaalis bi danga ko war a xam xam nga lu tax. Mhm. Euh, boo dee coordonnateur. Mhm. yow yaay responsable moral. Mhm. yow da nga war a am sa benn tableau de bord. boo xam ni bés bu ne. liy dugg ak liy génn. da nga koy xam. bés bu ne yow dañ la war a defal situation du jour. président la république si boppam. dañ koy defal situation du jour. léegi képp kuy jiitee dara ñi nga jiite yow dafa bokk ci sa liggéey nga fexe ba mu am ku lay defal situation du jour. yow loolu sa liggéey la bokk. loolu am na. maanaam am nañ benn secrétaire administratif boo xamante ni. bon léegi yow boo ñu defal situation. journée bu ñu def lu ñu def rek moom capitaliser na ko def ko PV teg foofu. très léegi yow maanaam tey émission boo gisee ma ñëw c'est toujours pour waxuma ay waxu kii yeeg mais wax ñun lakka la ñu def yan masir barrière la ñu teg. ba tey corona bi duggul Malika. aywa maanaam ci loolu laa gën a travail da baax na kon léegi yéen euh, corona bi alhamdulilah duggagul na Malika. Mm. te yéen seen sabab euh, mooy. jéego yooyu yëpp ngeen teg. Mhm. te euh, li si am solo surtout mooy xaaru leen kenn. xaaruñ kenn yéen xaaru leen état xaaru leen euh, préfet xaaru leen maire xaaru leen kenn. Mhm. da ngeen jóg di liggéey maire ñëw jàpp jàpp si euh, affaire bi dem. Mhm. loolu dama foog ni tey ñun waa Malika yi maanaam royukaay lañ si si fànn woowu ndax toog di xaar léeg-léeg loo xam ne mën nga ko def. soo toogee di xaar ñu la koy defal soo moytu da ngay guddee da ngay tardé te lu mel ni mbas moom bu bu bu la dalee léeg-léeg euh, balaa kenn di ñëw sax soo moytu mu faagaagal la kon nag euh, faju moom li ci jiitu aline mooy fagaru mm-hmm. moo gën faju mm-hmm. fagaru moom mooy faju mm-hmm. parce que boo xasee ba jël say matukaay maanaam matukaay yi moo gën a yomb fuuf faj faj mi waaw parce que faj mi moom léeg dina fekk nga tëdd dina fekk nga am gàllankoor te boo moytu sax léeg-léeg mu xaw a mm. mu trop tard comme ni ñu koy waxee mm. fekk béy way na mbuusam euh, léegi Alioune mm-hmm. li nga bëgg mu leer si bopp ñëpp dénkaane bi ngay joxe lan la bon dénkaane bi may joxe daal instant bi moo di ne dëkk bi doy na waar aduna laay wax doy na waar yéeme na ñëpp jaaxle nañ mm-hmm. wax ko ñàkk ko wax ñëpp jaaxle nañ dënkaat yi may joxe rek moo di ne nañu topp digle waa kër docteur parce que comme ñoom ñooy spécialistes yi ñoom ñoo xam ñoom ñoo jàngi woon bu ñëwee nañu lii la nañu ko topp instant bi exiger nañu nañu sol ay masque ngir yàlla na ñëpp sol ay masque booy gën a solal masque parce que man jàpp naa ne masque moom nga xamante ay tailleur dañ koy defar warul mun a jafe kenn tey ne serait-ce que am tailleur bu nekk sa koñ nga jël benn 1000 francs wala 2000 jox ko nekk defal ma ci 10 masque sax ma téye heure booy gën sol masque boo ñëwee fóot passé ba mu jekk teg parce que lii nii bu continuer fu mu jëm du sotti ñun instant bi dëkk bi lépp bloqué te état mënut a dundal ñëpp. déjà dund bi mu génnee problème yaa ngi ci dëkk bi mara daytaali lii mënut a continuer tey tey mara daytaali mara bu ñu demee ba dund bi mu joxee jeex te lii jógee fi ni ñuy def. Mm. ah kon donc ñun nit ku nekk na jàpp ne man mii kat man corona du ma dal ñun slogan boobu la ñu am. man Aline Mbaye corona du ma dal lu tax duma dal nag li waa kër docteur def li waa kër docteur wax loolu lay def du ma gën sol sama masque mi ngi nii sama poos parce que def nañ un moo tax sama biir or sax balaa ñu balaa nit di ci dugg day sol masque yóbbaaleetuma kenn sax parce que loolu aussi ci paak jàngoro bi ci il faut il faut ñëpp jàpp ci xeex ci pour tout simplement mu bu ñu fee jógee mais bu ñu xawee nasaxal tuuti. wala mm-hmm. bañ a topp digle yi. Mm. fi ñu jëm du sotti te su boobaa euh, ci ñëpp lay metti est-ce que euh, Alioune Mbaye li mu fi wax moom dëgg-dëgg xel nangu na ko te buñ ko jëfee euh, dinañu amal njariñ ndax euh, yitte wii ñu am tey muy mbas mi roofuñu ñun dañ ko war a mbas moom si boppam. mbas ko nag bokk na si sàmmonteeg matukaay yi nga xam ni waa kër docteur ñu ko te Alioune da wax lu am solo mooy feebar wu mënti nekk yëfu xam-xam la. feebar du yëfu ne kiy faje dafa dem jàng def médecine juróom-ñaari at dem defi spécialisation euh, jàng yooyu ay kayitam ñëw toog léegi lu mel ni mbas yi dafa am ñoo xam ni seen xam-xam si loolu rek la la màcc ñi ñiy def ay santé publique ah lañ koy woowee euh, ñi def ay épidémiologie ah ñi def ay virologie ñooñu seen xam-xam dafa màcc si si mbir mi moo tax yu mel ni su amee ñooñu dañ leen war a jébbal lenge yi laaj leen lan moo xew ak lan lañ war a def du ku ne moo war a wax ñi nga xam ni seen xam-xam daf see màcc ñoom ñoo war a wax lan moo xew ak mbir mi nan la ñuy jëflanteeg moom te loolu da nga ko leeral ñu ànd si ak yow euh, vraiment jaajëfal waa Malika yëpp suma wóolare ñoom Mor Babou ñoom euh, Maati Dieng euh, vraiment ñooñu sama waa kër lañ te ñoom tooguñu di xaar tooguñu xaar benn yoon seen collectif bii ñu teg vraiment dañu wane ne que euh, ndekete ñun Sénégal mën nañ siy génn. ñun Sénégal ñun mën nañ see génn si si lépp nag si si ndóol si ñàkk liggéey si euh, ñàkk njàng si yooyu yëpp mën nañ siy génn su fekkee jël nañ ay initiative te boo jëlee initiative wóor na ma ni yéen Alioune. Mhm. bi ngeen di tàmbali. am na loo xam ne dab na leen si liggéey bi tey njottu leen ko woon ne mën ngeen ko am. wallaahi wallaahi. bëri na. bëri na bëri na donc booy tàmmali léeg-léeg boo jëlee sa initiative nga am sa xel ne da nga koy jëmmal lu mu ndaw ndaw ndaw suñu borom mën na la si fekk bettee la loo xam ni yow njortoo ko woon sax kon euh, bu kenn toog bu kenn euh, sàggan bu kenn bàyyi loxoom mm-hmm. Mm-hmm. yokk si tuuti rek euh, loo bëggoon yokk Aliou bon comme comme ni nga ko waxee wasi di gërëm parce que aussi vraiment tey bu ñu nekkee ba toll fii aussi dafa ñu ñu jàppale bu baax a baax a baax comme ni ma ko waxee Malika benn bopp la ñëpp àndandoo ci xeex di gërëm ICP Thiam moom mi nga xam ne moom mooy dog docteur comme ni nga ko waxee ñun ci làmmiñam la ñuy dox ci làmmiñam la ñuy waxee ci ay tànkam lañuy dox ay instructions yu strict la ñuy jox te ci noonu la ñuy doxee. Aliou Thiam di gërëm le maire aussi vraiment boobu ba léegi mu ngi ciy jàpp mu ngi def lu tout. chef de village nag. maa ngi ñëw <laughs> ñoom xam nga comme administrativement maire moo fay kilifa vraiment di gërëm chef de village di gërëm maara bi parce que keroog bi ñu tegee dispositif bi Serigne Magu moo njëkk a génnee xaalis 100000 francs teg ko ci taabal bi. ñu koy gërëm bu baax a baax a baax di gërëm xadara bi benn kuréel bu fa nekkale di dox ci diina bi sëñ Mbay jiite ko dañoo génnee lu mat un million de francs jënd ko ay ceeb ñëw indi foofu su ma ko waxee rek wax naa association ya ne parce que association bëri nañ ku ci nekk indi na ku ci nekk indi na ñooy gërëm ñëpp di gërëm zone onze de Malika ñoom itamit vraiment taxuñ benn yoon ak réseau des CDS réseau des CRS district bi nekk foofu au niveau de Kër Massar parce que Kër Massar ak Malika ñoo bokk benn district sanitaire. Hmm. réseau ba fa nekk dafa dem benn benn benn planning bu am solo def post à la une. day jël benn poste de santé poste de santé boo xam ne dafay enveloppé lu mot ay treize quartiers quatorze quartiers ñu jël benn zone boo xam ne ñëpp a fay ñëw relais communautaire yi bàjjenu gox yi service santé ak comité beeg ñëpp ñu def sensibilisation ci gox yooyu yëpp dote leen ay masques. doti leen ay gel doti leen vraiment liggéey bu extraordinaire daal lañu gis Malika macha allah vraiment di ñaan yàlla aussi jàngoro bi teel fee jóge teel a jóge ci adduna bi yëpp ñëpp dellu ci seen activité incha allah mbaas mi yàlla nañ ko yàlla nañ suñu borom may ñu mbaas ko moom su boppam euh, te nag euh, ndimbal moom da cay fekk loxol borom ak la police Oh. maa ngi balaa maa fàtte. aywa police aussi vraiment ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, delloo njukkal euh, sunu ay euh, gan yi fi njëkk yëpp tey sunu ay techniciens autour de Babacar Karadio Diagne si réalisation bi sunu sunu ñawkat moom mooy Pape Si Diallo njiit création fii ci HLM Nimzat sunu ay téléspectateurs nag amuñu seen fay foo leen mënti nekk si àdduna bi. di ñu bàyyi xel di ànd ak ñun bés bu ne diggante altine ba alxames ba àjjuma fii ci 2STV si yitteeg njariñ ñu ngi leen di ñaar suñu borom jàmm xéewal ndimbal ak yërmande yi lore di euh, sànke yooyu yëpp suñu borom euh, fegal leen si euh, di jaajëfal ñëpp di leen dig daje altine bu soobee yàlla wasalaam.